السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفي جاكار لوك نغير نيو دي لين زيار لين فسيين نيوال تي حديث بسي ولا حديث السبن بي تي بايدنا دي طيب إن شاء الله فسيين فاتلي وانت أجيين نك ila xam ne toujours actualité lay doon te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon ñu ko te moom toujours jàngaleem actualité lay mosa doon te mooy hadis bii ñu leen indil tey te mooy laa yu laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsi muy hadis boo xam ne buñ ko jëfee te dégg ko mbooleem loo xam ne mbañeel la mboolem loo xam ne iñaanante la wala soxorante wala lépp loo xam ne luy ñagasal diggante la ci diggante jullit ak moroomu euh, te lépp lu ñagasal diggante jullit ak moroomu mën na faa jaare ñagasal diggante jullit ak moroomu moo xadis bi di wax ne yonent bi nee na gëmu kenn ci yéen du mat anam kenn ci yéen ak gëm yàllaam du mat fii ak bëggal boppam ci lu baax bëggalu ko mbokk jullitam ngëmu kenn ci yéen du mat fii ak bañal boppam ci safaan ci lu bon bañalu ko mbokk jullitam kon hadis na suñu dund buñ ko te dégg ko rek suñu mbokk la ritax suñu suñuy xarit suñu digganteeg suñuy collègue suñu digganteeg suñuy camarade de classe yépp day dugg ci biir incha allah kon ñu ñaan yàlla mu may ñu dégg ak jëfe musal ñu ci kiñaan ak bañeel kon loolu laa leen indiroon tey ci vendredi bi incha allah leen jox daje ba beneen vendredi ñu ñaan nag ngeen abonné ci chaîne bi te aimé ko incha allah jërëjëf